salaamaaleykum mbokki xibaaru guddi si li si nar a gën a fës. coalition taxawu senegal niki tey jii ginnaaw bu mu janoog ay militant la mu sàkk bokk na ci ñu daal di fonk la nga xamante ne moo jëm ci wàllu calendrier républicain ci noonu itam la daal di ñaaxaat ku jege ñu daal di gën a takku taxaw nag daal di wàcc ci biir terrain bi ndaxte gis nañ ne nag fi mu ne nii waa nguur gi ñoom ñoo ngi daal di wàcc terrain bi te bu ñu leen ko bàyyee rek yëf yi du doon lu baax ci ñoom loolee Khalifa Sall moo ko daal di yëkki niki tey jii. dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca booba jamono ca Kaolack ay militants yu bàyyeekoo ci parti bu ñu duppee Front pour la défense et des intérêts du peuple daal utali ki leen di Modou Diagne Fada lu toll ci ñaari junne ay membre daal nañ sey niki tey jii ci parti boobee nga xamante ne Modou Diagne Fada moo ko daal di jiite. loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi caxat caxate gi ñuy def ci suuf sa vallée bi tax na rek askan wa fay yeewoo rawatina ñu nekk fii ci Ndakaaru daal dinañ mer ba fippu jàpp na nag loolee faw ñu daal di ci andi ay joyanti ba tax rek ñu am ay tegtal ya nga xamante ne toll na ci fukk la ñu daal di dëxëñ def ko ci kayit ne faw ñu daal di ko doxal ngir rek jàmm mën faa dellu si loole dinañ ci ñëw ci yàlla ci yaatalu xibaar yi tàggat yaram ligue fanweereelu bëccëg classico bi dox diggante Real Madrid ak Barcelone Real moom moo daal yóbbu raw gàddu gi dugal ko ñaari bal ci benn loole dinañ ci ñëw boole ci yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat tey kon tënku leen ci ponk li ñu sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen leble fi bor ci 33 825 18 30 Pape Abdoulaye Dieye mu féete ci xaral Birama Ndiaye sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo tey nag gaaw yemboog fukki fan ci weeru avril atum ñaar fukk ak benn yooya xibaar ñu doore ko ci mbirum politique coalition taxawu senegal niki tey ji ci ndaje bi nga xamante ne da ko duppee jokkoog askan wi foofee la daal di sàkku ñu daal di fonk la nga xamante ne moo jëm ci wàllu calendrier républicain ñu ngi koy doxalee atum 2021 gi la ñu daal di amal jongante gox goxaat yi législative yi ñu daal di ko amal atum mille 2022 atum 2024 li leen di présidentiel loolee nag ngir mu daal di am faw rek ku jég yi daal di gën a taxaw wàcc ci biir di utali li nga xamante ne moo jëm ci seen wàllub militant yi Ismaïla Marcel Coly tey Khalifa Sall mu sawar te dëggu la ñu daaji gis ginnaaw bu muy dajee ak ay militantam ak ay andi jàmmoom di leen ñaax ngir ñu gën a takku taxaw ngir mën a utali ci jongante gox goxaat yi ci noonu muy xamal nguur gi dañu war a fonk lii di calendrier républicain bi ñun li bëgg li ñu laaj ko nit

opposition bu yaatu opposition buy opposé wu parce que démocratie dafa am majorité am opposition il faut que ñun waa opposition ñu xam ni rien ne nous sera donné luñ ci am rek ñoo ko wutale suñu bopp ñoo ko xeexal suñu bopp donc le front de l'opposition ak composante yi ci bopp yëpp ñu di leen woowaat ci ni nañu gaaw te wàcc ci terrain bi gouvernement bi ak majorité bi ñu meeting ñu ngi réunion ñun ñu toogee réunion ci saa yeeg bureau yi rek dafa doy. nañu dem ci ñi nañ dem wax ak nit ñi nañ dem yéen nit ñi. li ma waxoon laay répété. gars yi ñu leen jaral nañu ko jaral. niki gaaw bi nag. coalition taxawu Sénégal. mu ngi doon ñaaxaat ay militant ak ay indi jàmmoom ngir ñu gën a yënguwaat farlu ci liggéey bi ci noonu mu xamal leen ne ñoom ñëpp dañu nar a wàcc utali askan wi ndaje bi le nag mbooloo mu tàkku di ay militant ay xarit ak ay andi jàmm ñoo ko daal di teewee ca booba jamono foofee ca Kaolack LDL yeesal mi nga xamante ne kile di Modou Diagne Fada moo ko fa daal di jiite naataangoom ya fa daal di nekk nag daal nañ dalal niki tey ji front pour la défense des intérêts du peuple lu toll ci jaar ñaari junniy membre ñoom ñoo fa daldi nekk niki ji nag say nañ ci parti Modou Diagne Fada boobee ñoom nag la ñu tax ñu daal di def li ne mel nag gis nañ ne nag kile di Modou Diagne Fada moo leen doy ba tax rek ñu daal di ko amal niki tey ji Jibi Ndiaye moo nekk seen président ñu teewlu ko Mamadou Camara trois pour la défense des intérêts du peuple ñu toogee boo gis nañ ñun war nañoo mën a fekk ku mel ni mu dañ fada hésité wuñ ci benn yoon ndax moo di dañ fada comme ni ñu ko waxee sànq ci tubaab yàlla dafa dogal mu nekk koo xam ne leader politique la boo xam ne kenn du ko lam-lame nekk ndaw boo xam ne léppam da ko ñefe dans le PDS ci biir état amul ndomba tànk bu moo dañ fada takkul tey yàlla dogal su ñuy xool moo dañ fada dañuy xool PDS le vrai PDS nous sommes de vrais libéraux ñun ay nitu ay élève Abdoulaye ñu gis ne tey Abdoulaye Wade yàlla def na mu génn ci presque la politique parce que engrais ko ba def yenn ñu gis un jeune boo xam ne Abdoulaye Wade ko formé muy moo jaay fada ñu jàpp ne kii war nañu ànd parce que fi mu jaar dara ñaaw fi mu jaar yëpp lépp a leer lépp a rafet te loolu moo jar a xool si nit te gis nañ ko ci moo jaay fada ñu jàpp ne aussi leader la boo xam ne tey wax dëgg yàlla ak loo ci mën a dégg it kenn mosu ko dégg ci lu ñaaw tey moom la ñu dénk Sonacos waaye def ay résultats yu extraordinaire te ñun ay doomu Saalum lañ mbéy nañu yaakaar gerte gi nañu yaakaar fii mooy bassin arachidier fii la ñuy wax Kaolack mooy bassin arachidier kon

kon bokk waa jàngook ni ko Jibi Ndiaye waxee moo nekk président mouvement bile di FDIP ni ki tey ji la daal di sëy ci parti bu Modou Diagne Fada foofee ca Kaolack caxat caxate gu ñuy daal di def ci suuf si loole daal di na law ba ca vallée du fleuve bu Sénégal te lenn waralu ko lu dul këru liggéeykaay yu bàyyi ko ca biti réew réseau bi nga xamante ne nag dafa bokk ci vallée boobee moo ngi kaa daal di métitlu ni tey ji la janoog way taskatu xibaar yi daal di def na nag yile pexe toll ci fukk buñ ko daal di defee rawatina njiitu réew mi jàmm dina dafa dellu si Odile suuf si féetoo ca fleuve Sénégal ñu ngi koy gën di caxat-caxatee ak di ko jël ci façon bu jaaxul yoon ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóge ca biti réew ñooy def lu ni mel lu toll ci fukki entreprise yoo xamante ne ca biti réew la fekk baax ñu ngi ko taxawal ca boobu boobule bërëb mbay Mbaye Cissé moom mooy njiital réseau de la vallée. suuf si niñ koy caxat caxatee ci multinationales yi yenn entreprise yi nga xam ne dañuy jóge bitim réew. ñëw di accaparer suuf si. ak di dégrader environnement bi. léegi bu nga xamee ni constaté nañ ko au niveau de la vallée. lu ci mel ni compagnie sucrière sénégalaise lu ci mel ni seen Senhuile lu ci mel ni yeneen entreprise yi nga xam ne ñi ngi fa mais ñëw nañu signé nañu ak état du Sénégal te xamuñu lan la ñu signé ak état du Sénégal population bi di ci perte dañu wax ni pétrole dafa nekk enjeu nekk défi mais suuf tamit dafa nekk enjeu nekk défi comme ndox dafa nekk enjeu nekk défi ngir nag programme bi ñu teg ngir ceeb bi mun a doy ñëpp fii ci Sénégal jëm kanam fukk ci ay recommandation ak itamit bëgg lu leer daj dinañ ko laaj njiital réew mi di Macky Sall ñu mën cee lim. siiwal contrat bi nga xam ni Sénégal signé na ko ak compagnie sucrière sénégalaise soit ñaata at la pour ñu xam aussi limitu surface bi ñu ko jox pour mu bay ko ñaata la ci kaw loolu comme am na dommage état dina ko assigné. pour mu indemniser victime accaparement wu terre beneen bi mooy dinañ demande aussi ay dommages et intérêts pour les commune respectives parce que communalisation la ñu wax ak trois de la décentralisation beneen bi mooy 8000 hectares Cheikh Hamidou Kane yi nga xam ne 1700 hectares yu rabi fekkee ñu ngi ci biir ay village nekk fa seeni armel nekk fa seeni jàkk nekk fa ñu dëkk fa nekk ci insécurité ni compagnie sucrière sénégalaise bi di jëlee suuf si foofee ca Waalo da dina andi ay jafe yu tar ci askan wi bu sukkandikoo ci réseau de la vallée association bi ëmb ndongoy étudiant yu nekk foofee ca université Alioune Diop bu Bambey te ñu bàyyeekoo ca Kaolack ñoom nag lu toll ci juróom fukk fa ñoom fi mu ne nii ci mbedd yi la ñu daal di fanaan amuñu fu ñu dal ndaxte lenn waralu ko lu dul location gu daal di cher ba jéggi dayo amical bi nag daal di na sàkku kilifa yafa ñu daal di fexe indi saafara ci coow loole Thierno Thiam moo nekk seen secrétaire général ñu teewlu ko Adama Ndiaye. boo gisee tey ñu taxaw fii dañuy feeñ gi nga xam ne ni autorité Kaolack yi ñu ngi ko ñu nga fa yor ko tamit ñuy soxla ndimbal ci côté financier comme social parce que ñu ngi ci université bu nga xam ne nii capacité d'accueil dafa ndaw trop trop te dañuy mettre dans l'obligation ñu mën a jël amical bu nga xam ne nii dañ ci loger ñi nga xam ne ñooy door ñëw ci université bi ci si loolu nag dañ ci soxla seen baax a baax te gis nañ que nii ñoom doxuñu ñu koy naqarlu bu baax a baax. ñaata étudiants jafe-jafe logement fii. buñ ko daal ci xayma yi ñu def ñu ngi toll ci presque ay juróom fukki étudiants yi nga xam ne nii dañuy am jafe-jafe pour ñu leen di loger ci biir euh, amicale yi wala ci biir campus sociaux yi nga xam ne nii moom la université bi di am nekkin bi nan la demee fii. bon nekkin bi moom metti na trop ay xat-xat yu tar tar yu nga xam ne ni moom la ñuy noté euh, dans la vie quotidienne chaque jour bu ñu xëyee ku ci nekk problème ba ngay montré bokkut ak problème ba keneen di montré. ba tax na loolu ñun ñu ngi ci def lu ñu ci luñ ci man mais tamit suñ kàttan da am fu mu yem moo tax a chaque fois rek ñuy bëgg wax autorité ñu jàppale ñu pour que seen condition yi nga xam ne nii ñu ngi koy dund fii tey ñun seeni doom lañ ñu mën cee jàpp ba mu xaw war a tax tuuti. fukki simili ak benn moo tegu ci juróom-ñeenti waxtu ca pal ngeen ñuy teewlu ngir taataan fi xibaar yi ñu àdd foofe rawatina ci xëyub ndaw ñi ni ñuy def ba daldi ci andi saafara ci jamonoy mbas mile mbëbët la bokk na ci ñu daldi fexe gune yooyu daldi am fa nga xamante ne dinañ fa gën a suturlu loolu nag ñoo ngi fa daal di am ab ndaje bu yaa niki tey jii xool ana yan pexe la ñu xel di teg ngir rek gune yooyu daal di fa am ab xëy Yves Tendeng léegi kat tollatuñ ci benn jamono boo xam ni jamonoy wax la jamonoy def lañ toll. gis-gis bu ni mel daanaka ñi nga xam ne ni ñooy ndaw yu tëral bi la kuréel ñu duppee Paloise daanaka ñoom yàgg nañ ci bàyyi xel te mu waral ñu daal di teel a jóg ngir yëngu ci wàllum defar ak i jaay lii di meew ak i de fruits yi. à li ni moo waral sax lël bi la ñu sumb te ñu jagleel ko ñi nga xam ne ñooy ndaw gox bi bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Alioune Diop mi nga xam ni moo jiite kuréel bi di la paroisse. tey dañuy ñëw def benn jàngat mooy nan la ñuy yeewee sunu moroomu xale yi wala sunu mag ñi nga xam si dugg nañ si mbir mi mu ñu tuddee l' entrepreneuriat looloo waral ñu organiser tey forum bii nit lii nii am na leen lu nekk si suuf mooy dañu bëgg wan sunu mbokk wi surtout sunu yaay wala sunu papa yi mën nga jàng ba am say kayit waaye nga ñëwaat sa dëkk investir fi li fi nekk nga mën ci jariñu jariñ si sa waa bi ñu tànn ci lël bi lee moo di rek. lu tax nit ku nekk war a jéem dara lu tax nit ku nekk war a xool lu mu mën a def ci jamono bi nga xam ne si réew mi dafa metti lool. moom mi lee di Samba Diop di entrepreneur te doon doomu dëkk bi di dellu si ci li waral ñu tànn bi lee thème. métti bi nag lu ko indi ñëpp xam nañ ko mooy gan gi nga xam si dafa ñëw doon gane si ni lànk ni du ñibbi muy Covid 19 bi moo gënoon exacerbé donc crise boobu te jii ñu gis ni y' a beaucoup de perte d' emploi donc mu nekk benn contexte boo xam dafa difficile donc jeunes yi nga xam si ñoo a góorgóorlu dem ci entrepreneuriat. muy ay ndaw yu nga xamee ni ñoo ngi xaarandi lu bëri ci nguur gi ngir mu jàppale leen te gunge leen ci seen yëngu-yëngu. waaw nguur gi moom li ñuy xaar ci ngoom mooy ñu gën a déglu xale yi gën leen jege pour mën leen accompagner. kii di Cheikh Abdou Karim Diop mi nga xamee ni bokk na ci ñu leen di fara jàppale ci diwaan gi moom mu ngi leen di ñaax ñu gën a farlu ci liggéey bi te bañ a bàyyi seen yoxoo. waaw li ma leen di dénku moom mooy li ma leen fekkoon ñu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 moo tof moom lañu ñu toftal ci kii leen jiite ñu teewlu ko Babacar Samb. waaye ñu ngi ko fas yéene si antu altine bii di ñëw altine bii di ñëw defe naa mooy tombe 12 avril euh, mooy tombe euh, 29 ci weeru baraxlu bii ñu nekk te yonente bi alayhi salaatu wa salaam loolu leeral dafa ne mu nekk ñaar fukk ak juróom-ñeent wala mu nekk fanweer su muy nekkee ñaar fukk ak juróom-ñeent mooy bu ñaar fukk ak juróom-ñeent fan jotee ngeen séentu bu ngeen gisee kon ngeen xam ne weer wi dee na bu ngeen gisul kon ngeen xam ne weer wi deewagul ngeen motteli mu nag euh, fanweer kon nag altine la ñuy séntu bu ñu gisee ñu xam ne weer wi dee na tàmbali koor gi talaata bu ñu ko gisulee ñu mottali ñu xam ne kon alarba la ñuy woor kon démarche boobu la ñuy suivre incha allah tàggat yaram juróom-benneelu bëccëg jeexale li leen di Ligue des champions Teungueth FC daal dina nërmeelu niki tey ji ci kanamu Zamalek ñeenti bal ci benn lañ ko daal di dóor euh, poulain Youssouf Dabo yi nag daal nañu sauver honneur ginnaaw bi nga xamante ne ki leen di Pape Ousmane Sakho dugal na fa benn pour bal euh, ci ñaareelu xaaju ndaje boobe Teungueth FC nag moo nekk ci euh, ndadde ci groupe D victoire boobee nul ak euh, am benn victoire am benn nul ak ñeenti défaite ligue sénégalaise fukkeel bi yoon ak ñetteelu bëccëg ligue 1 samedi bi la Dakar Sacré-Cœur moo dóor Mbour Petite Côte ci ñaari bal ci dara euh, ligue 2 match nul vierge ndam demul ndam dikul diggante Amitié FC ak jamono bu Fatick Ezi Fatick moom moo dóor ñetti bal di Thiès FC ci ñaari bal Dakar Université Club moom itam moom moo dóor benn bal ci dara li di Guédiawaye Football Club Euh, de Guédiawaye football club ci kanamu Mbour benn bal ci dara. ak euh, benn bal ci dara ñu jeexale ko itam Africa Promo Foot moom dafa daal di ci kanamu Renaissance mi ko dugal benn bal ci dara fanweer bi bëccëg ak benn. Euh, wala boog ñëw balaa ñoo daal di egg ci li nga xamante ne moo jëm ci biti réew ñu daale ko ci footballu tefes bi di but si Soko match amiko bi ñuy waajal kaan bi nga xamante ne ñoo ko fas yéene amal ki ñaar fukki fan ak juróom-benn jàpp fanweeri fan ci weeru mai gi ñu dëgmal fii ci Sénégal Sénégal nag moom moo daal di. Euh, jël ndam li ci kanamu Maroc yooyu nag ñoo leen daal di dóor ñeenti bal ci ñaar ndaje boobee nag dañ ko daal amal ci place bu jamalaay bi mooy ñetteelu ndaje bi nga xamante ne ñaari réew yooyu ñoo ngi ko daal di euh, tase fanweeri bëccëg ak benn Prime League Liverpool mu dóor Aston Villa ci ñaari bal ci benn l'équipe bu Sadio Mané bi nag. Euh, donc remplaçant ci ndaje bi le nag moo ngi nekk ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu ñeenteelu place bu classement boobe ligue liga bi nag fanweereelu bëccëg di trentième journée classico bi dox diggante Real ak Barcelone Real moo daal di jël ndam li dugal ko ñaari bal ci benn Ligue de champion CAF huitième de finale match nul moo dox diggante. ak euh, Orea FC di képp ku nekk dafa dugal boromam ñaari bal diggante Orea FC ak Kaiser bu Thiès.